mbokki internet yi euh, nuyu nañ leen dal leen nag euh, jàmm ci seen émission wax sa xalaat wax sa xalaat tey thème bi euh, dafay laal li nga xam te moo di mercato ndax crise ba ñu nemmeeku ca FC Barcelone tey li ñuy laajte mooy ndax entraîneur bi di commande dafa war a mën a dem jëli ji saajo Mané ngir mën a fay lakk gi nga xamante jamono gi gis nañ ko ci FC Barcelone Mouhamed Lamine Diop nuyu naa la fay naa la na fi di hmm. nuyu internautes yi. sa club baa ngi lakk de. club baa ngi lakk donc est-ce que Coman euh, doit faire appel à Sadio Mané pour relever. Mm-hmm. Ah, le FC Barcelone donc yaakaar naa comme ni nga ko waxee ci olof loolu moom mooy thème bi. Mm-hmm. et tey jii nii yi nañ ci wax seen xalaat lan la ñu am comme euh, gis-gis. par rapport mm-hmm. ak. Euh, Euh, transfert beaucoup est-ce que Sadio Mane rejoindre FC Barcelone. 78 150 74 72 78 150 74 72 ngeen woté ci li nga émission bi euh, par rapport à cette question est-ce que comment doit faire appel à Sadio Mané pour relever euh, l'équipe du FC Barcelone wax ko di leen ko émission Canal Plus Sénégal sponsorisé Canal Plus Sénégal mi en promo. Euh, ba le 31 août le décodeur est à 1000 francs ngeen jënd ko abonné wu mëna a euh, li nga xamanté euh, modi championnat yi di reprendre ci ni ngeen ko bëggé muy ay image yu stellaire ànd ak ay commentaires yo xamanté dina leen mëna léral en tout cas ci li nga xamante modi championnat yi Elamine Barcelone jamono gi crise lay lay dund ndax gis nañ ni Euh, départ yu bëri nemmeeku nañ ko euh, bien sûr à l'origine euh, mooy défaite bu rëy bi nga xamante jël nañ ko ci Ligue des champions bi mais même lu jiitu défaite boobu am na ay crise yu ndaw yoo xamante gis nañ ko ci FC Barcelone ba bu mujj bi mooy départu Lionel Messi moom moo marqué mbir yi ndax Sadio maane war nañ ko woo jamono gi mu ñëw ci équipe bi noo koy analyser balaa ñu koy analyser yaakaar naa am nañu inter sunu internet bu njëkk mën nañ ko jël mhm. Euh, d'accord mm-hmm. donc tey jii ni euh, boo crise bi ci FC Barcelone ça date pas d'aujourd'hui parce que Barça il faut il faut il faut aussi que ñu wax que Barça depuis des années. rek mm-hmm. ñu ngi dund difficulté, mais. Mm-hmm. Euh, à petit feu da ngay gis naka lañ koy nëpp nëppalee naka lañ négocier. voilà nañ jël internet bu après ñu délu ci wat ci allo. allo alaykoum. salam salam. soxna si sëriñ bi maa ngi leen di siyaar. ñu ngi delloo siyaar bu baax tur bi naka la ak fan nga ñuy woowee. monsieur Touré depuis Italie. d'accord yaa yaa ngi ci biir Touré. waaw commande bëgg na Sadio Mané mu ne de man daal en tout cas Sadio Mané moom tout sauf Liverpool laa laa woote fu mu toll nii quoi man moom bu ñu ko signé ñaari tali sax mu quitté Liverpool moo ma gënal. d'accord ndax la. parce que bu ñëwoon ñaari tali dina am sax ñu ay coach wala dina am sax ay dirigeants yu taxaw ñu ne ñema jël seen responsable pour défendre. waaw mhm. ah, da nga jàpp ne club duñ ko. waaw nekk ci club boo xam ne nii moom li ko dagg ci coach bi ba ci diri dirigeant yi amul kenn ku ñeme jël ci seen statut sax WhatsApp wala Twitter bind ne Sadio Mané il a le meilleur te mu muy nekk meilleur kay kooku kay fu mu a dem baax na man di su ma doon ko ñaanal fu mu toll nii a créer benn xam naa ne Messi dina quitté parce que comme que neneen club bu Barça amatul capot moom mooy capot bi te loolu moo mooy problème bu Barça mooy moo nekkoon ci biir moo nekkoon ci vestiaire ay xaritam ñoo nekkoon ñoom lañ ñoon teg ci kaw Messi bëgg a tax a quitté loolu lépp mooy ne xaritam yëpp waa ji daa xam ne rek fu nii. du problème de direction mais problème amadou copina légui nak club bi ñuy défer bes ku melni ni continuer retourner Sadio Mané wara dem nga xamné ne ni am fa place ak xale yu ndaw yu fa nek club ba dañ séntu Liverpool gi ñu gis tay bi ci fekk 200 Barcelone gogum moom la gisat d'accord d' accord Mané amna fa place bu baax pour man wax deug yàlla amna fa place parce que club bu mel non du fa Sadio Mané demoon fu mu toll da ngay nek star ba da ngay nek ko xamni ne liñ bëgg yaa leen koy jox parce que amatul ko yi te Catalan yi moom gëm nañ nit ko xamni bu fa nekkee fekkee amul benn espagnol bu fa nekk rek yow mun nga nekk capot bi mais par rapport ak Liverpool nga xam ne ni Klopp Seck Max yaa ko ciy génne xeex rey sa bopp. Mm-hmm. d' accord. bu baax wala cinquième position si li ñuy joxe. Mm-hmm. d' accord merci monsieur Touré. Euh, mooy problème man fu mu mën a ñaari taleeg syndicat fu mu a dem man sauf Liverpool. Mm-hmm. man maa doyal ci Liverpool te maa leen supporté quatre ans mais léegi moom. <laughs> D'accord, merci beaucoup. monsieur depuis 2015. Mhm. le FC Barcelone euh, après que nous remporté li nga Ligue des champions avec euh, euh, la génération de ñi nga Neymar parce que nous avons dit le trio Neymar Suarez et Lionel Messi depuis 2015 c'est le cycle Barcelone mhm. cycle Barça. après 2015 mhm. on a vu Barça enregistré beaucoup de départs et mhm. tay ji ni mi ngi mom moy répercuter ci équipe bi allo allo oui allo oui allo oui assalamu alaikum wa salam c'est Ibu la Ibu di Espagne Ibu mi ngi ziar naka mu ba ziar doli ziar lu bare bare ma ngi ziar delo ziar yang ci bir waaw man de tey kii waa émission bi am na solo trop surtout tamit ci ñetti saar lañu waxtaanee quoi Sadio sama xalaat mm-hmm. mm-hmm. iya, bu ma doon moom du ma dem lu tax yibu waa Barça ni sax dafa nekk si Mhm, équipe bi dafa lu bare Mhm, lu ko dalee si défense bi ba si milieu terrain Mhm. Sadio Mané dafa nekk ci yoon nekkul nekkul si yoon boo xamante ne dafa war a jubali si yoon yoo xamante ne ay tàmb la am mm-hmm. man ma préféré mu toog rek si Liverpool parce que dafa nekk équipe boo xamante ne dafa laajaat defaraat xam nga équipe bu laajaat defaraat du doon benn saison mun na tamit mun na doon deux saisons sax wala lu ko ëpp. Mm-hmm. te Sadio Mané nekk na joueur boo xamante ne am na lu nekk ci kanamam ay Ballon d'Or xam nga ay compétition. coupe du monde day ñëw si kanam yàggatul dara te dafa war a nekk équipe boo xamante ne dafa war a stable équipe boo xamante dafa war di gagné ay titre di jëriñ ay ligue des loolu mooy avantage am pour mu mun a oser pour gañawaat deuxième ballon d'or Afrique wala mu mun a dem sax taxaw si podium ballon d'or Europe. parce que waaw Barcelone instant bii nii dafa dafa dañ nekk ci kii ah. équipe bi dafa nekk si fay bu garaaw laa la wax. d'accord. waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ok loolu mooy kon sama xalaat. merci beaucoup Merci. nga enchaîner avec les autres. enchaîner waaw ok jërëjëf. jërëjëf Ibou merci. allo allo oui. allo. déggante bi neexul de. wala du ñàkk mu ñëwaat euh, dañoo am kenn wala voilà euh, nañu nañu profito ci pause bi peut-être pour parler des relations. de Konaté de Sadio Mané euh, parce que parce que dina dina intéressant wala ñu jël internet bi après ñu ñëwaat ci loolu allo. allo. allo oui. salaamaaleykum Diouf Sow. maaleykum salaam sëñ bi tur bi naka la fan nga ñuy woowee. waaw man Fana du sport laa tudd. naka wiw sport. Fana Fana du sport maa ngi dëkk Aslem. Fana wiw sport d'accord. Fana du sport. waaw Fana du sport. Fana. du sport. du sport. Mhm. ah d' accord pour man dafa tuddee boppam. ñun quoi. amul ah Fana waaw. pour man dañoo amoon turandoo noonu. waaw. Mhm. <laughs> waaw man dama bëggoon rek par rapport ak sujet bi mooy Sadio Mané au Barça ndax comment daf ko bëgg a recruter. Mhm. man yaakaar naa ni c'est le moment idéal am na solo suñu tool yi Sadio amatul lu mu mën a prouver biir Liverpool euh, euh, parce que équipe bi toog trente ans championnat mhm. mu jël championnat ak moom ku mhm. doon jël ligue des champions yow ko ak moom mhm. comprendre nga yaakaar naa ñaari majeur yi nga xam ne Liverpool mu ngi koy ut boole sa coupe du monde des clubs mënatul def lu lu raw lu mu def entraîné histoire club léegi man li ma gis mooy Barça c'est en pleine reconstruction ak départ Messi bii ñuy wax même bu fekkente ne dem naag demul dafay bu bees. Mhm. kon Sadio mhm. ak beneen équipe bu gën a am ak beneen histoire bu gën a mag tey nag muy Barcelone. mu nekk challenge yi ci moom d'accord. Euh, mu nekk challenge beneen bi mooy. Mhm. boo xoolee il ne part pas à l'aventure bu ma mënee wax parce que day day dem bu fekkente ni soxla nañ ko am course boo xam ne mhm. mos na ko yor te xam na ay qualité xam na ay capacité loolu tamit benn côté assurance de si jour mhm. nga dem si course boo xam ne mus na la yor te xam na yow say capacité dina la permettre nga mun a nekk dans ton élément pour mun a exprimer wu mhm. beneen bi troisième bi pour man lu tax mu wara a gën mun a def après son sacre si ballon d'or africain bi tey lu ñu mën a wax mooy Sadio Mané ñëpp ñu ngi koy séntu si ballon d'or bi nga xam mooy européen. Uh-huh. te yaakaar naa pour mu mun ko am pour mu mun ko am tey uh-huh. il faut mu benn équipe yi nga xam ni ñoo gën a jege ballon d'or tey àdduna bi équipe yi gën a jege ballon d'or bu ñu naxante Real la ak Barcelone. te uh-huh. su ko nekk am na lu ko doxee. impossibilité day gëna yomb ci yow ke bo nekké yenen équipe yi bien vrai que liverpool amna na visibilité aussi mais tay ñaari équipe yi gëna jégué jege ballon d'or mhm. pour man ci aduna ko moy Real ak Barça mhm. kon man gis na ni Sadio Mané bu fekkenté ni dëgg-dëgg Barça soxla nako wala commande soxla nako non c'est le moment opportun pour mu dem comme ça warul hésiter c'est le moment D'accord. Pour hein? Parce que toutes les conditions sont en réunies pour mu mëna pour mu mëna dem fofu quoi. D'accord, d'accord. Merci Pana. donc oh, mhm. et que 2015. après 2015 mhm. on a vu euh, FC Barcelone que dafa am et et ay commencé à quitter. Mhm. donc depuis lors on a vu que les nga ont le à cycle parce qu'il y avait plus des Xavi y avait plus les Iniesta. donc donc y a plus de euh, Amna na en tout cas ils ont quitté le club. donc après on a senti une régression boo xamante mhm. am ci résultat yi ci résultat yi. Mhm. donc bu ñu ñëwee saison ren et que raakale bi nga xamante ni Bayern de jox na leen ko. Mhm. ba loolu moom moo la réalité en fait de ce qui se passe au FC Barcelone. non seulement comment ils ont perdu le championnat. parce que la façon dont ils ont perdu le championnat après Real ñëw fekk si leen ba gagné ko seen kaw loolu yëpp dafay wane ne que Barça. cycle bi dafa jeex et que on a vu que Griezmann Griezmann ñëw na mais ba léegi adaptation bi ci war amu ko. Mhm. Euh, Dembélé ñëw na boobu ba léegi il n'a pas été efficace il y a pas mal de joueurs. qui mhm. sont qui sont là et que Barça da ngay sentir ba léegi y a une crise. Mhm. mooy fin de cycle bi ñu bi ñu remarqué ci côté sportif bi résultats yi. aussi remarqué nañ ko ci côté euh, recrutement bi recrutement Barcelone euh, mujjantal bi kenn xamatul lan lan lay duru. y a pas mal de postes yoo xamante war nañ ko fournir et que gisuñu ko woon ba léegi am na benn. waay bu génn sànq certainement le le le fait que Messi. mu bëgg quitter quitter le club. Mhm. même si euh, euh, loolu ba tey euh, ñu bëri ñu ñu ñu bëri ñu ngi ciy douter. Mhm. ndax Messi dafay quitter wala dafa jël. en tout cas il a fait une mhm. que gis nañ président Catalogne bi sax. il lui a fait ses ses mais bu dee bu dee amaguñu kenn ci ci ci ligne bi peut-être aussi ci la ñuy jéem a expliquer la relation bi nga xamante moom la Koeman am. ak euh, Sadio Mané. Mhm. ba indi tey jii nii li nga xam moy moy thème bi. Mhm. en tout cas dañuy dañuy gis d'un bon œil euh, Sadio Mané tay bu dématone di liggéey ak ki nga xam te di commande parce que c'est pas la première fois jottu nañu liggéey mhm. à Southampton mais euh, li nga xamanté mom moy moy résultat yi Sadio Mané génn avec la complicité de la régie je pense mëna ñoo tek statistique yi tay mëna waxtaan ci tay bu Sadio Mané delluwaatoon ci loxo man nan lay démé comment c'est un entraîneur bo xamanté euh, min na joueur sénégalais yu ci melni Sadio Mané Idrissa Gana Gueye wala wala Baye Omar Niass mhm. on peut dire que Sadio Mané a a démarré euh, sa collaboration avec Keman mhm. c'était en 2000 2000 2014 2015 2015 2016 2017 tey jii Sadio Mané mhm. avant de rejoindre fi nga xamante ni nii moom Liverpool il est passé par Southampton euh, par Southampton il a eu euh, à travailler avec Keman mon est ben entraîneur qui xamante ne tout le monde qui connaît Keman sait que. Mhm. c'est c'est un entraîneur qui xam faire dafa am mhm. ah, par rapport à sa carrière par rapport à son parcours en tant que joueur. Mhm. Keman du FC Barcelone on le connaît. Keman euh, un entraîneur qui veut quand même le beau jeu un entraîneur très exigeant. rigoureux rigoureux voilà tey ça a été pendant deux ans. Et mhm. sur ces deux ans, on a vu que euh, quand même, il a eu euh, ben, une saison remarquable parce qu'il a, mhm. qu'il a enregistré deux saisons. Mhm. Euh, sur ces deux saisons, il a fait 75 matchs. Parmi les 75 matchs, il a eu 25, 25 buts en toute compétition, sans compter les 11 passes décisives. Donc, la première année, Sadio a marqué 10 buts. Il a joué 30 matchs. Donc, deuxième année, il a joué 40 matchs. Donc, il a joué 40 matchs. Euh, tay on peut dire que né mhm. Sadio Mané bi mi nek ak man. Mhm. quand même il avait il faisait de bons résultats. Mhm. malgré sa première saison il a il a il a marqué 10 buts mi ngi doon jug soog a euh, championnat. et qui connaît la Premier League. Sadio Mané est a a quitté Salzbourg pour pour venir jouer à Southampton. et il a quand même marqué 10 buts comment jàppale ko mu adapté tey jii nañ en quelque sorte s'il a bien adopté la Premier League. c'est grâce à Koeman. Et surtout le style de jeu, de jouer dans un trio d'attaque. Euh, faut la ko la voilà. mais tout ce qui tout ce qu'on dit est que ce aspect bobu nonu moy que sur la sur le plan personnel voilà sur côté aspect humain mhm. Taïdjini, et peut-être ça, passe mhm. et que saison 2016 saison 2016 2017 moi deuxième saison 2015 2016 2015 2016 on a vu que euh, Southampton a terminé à la sixième position. Mhm. tey Chilinga a ci li nga championnat ça veut dire que tey jii mu nekk de record pour le ni club bi daf mhm. maintenant tey ça veut dire que le courant passait bien entre Sadio Mané et Koeman. Mhm. le le le courant passait bien et que ñaari euh, complicité bi amoon entre euh, Klopp ak ki nga ni ne nii moom mooy Sadio Mané. da ko sentir bi Southampton ak parce que c'était quelqu'un qui le protégeait. Mhm. Mais il y a autre chose. Mhm. Il y a de cela quelques semaines, mhm. Xavi Hernandez, Xavi Hernandez, militaire espagnol, ancien joueur du euh, FC Barcelone, a fait une sortie pour dire que né, Sadio le style de jeu de Sadio Mane n'est pas compatible avec celui du FC Barcelone. Barcelone qu'est-ce qu'il veut dire par là Barça, c'est euh, une équipe qui il joue en attaque placée. Attaque placée, Barça, c'est le beau jeu. C'est la construction du jeu comprendre mhm. Xavi il faisait allusion à à la façon euh, dont joue Sadio Mané à mhm. Liverpool. Mhm. Sadio Mané ñep xam nañ il joue sur sa vitesse. Teddy ni bu euh, Liverpool bu yoré balle bi ñu ngi xol comment il se projette vers l'avant et que Sadio Mané il est toujours qui euh, passe les passes profondeurs 90% à 90% des buts qu'il a eu à marquer passe passes profondeurs a xam de dafay fël. dem jouer ci vitesse dem dugali but donc Teddy je crois que c'est l'aspect bon pour euh, fay am en fait le fait que nous indi statistique c'est bon. mais mhm. baax na ñu indi. le fait mhm. que li déclaration bi Xavi defoon. par rapport mhm. ak tey jii euh, style de jeu wu Sadio Mané ndax compatible na bu Barça ou pas. efficacité bi mi am ci Premier League bi ndax dina ko mën a am ci euh, Liga bi. mën na ah, ko am ci Liga bi mais aussi ci style bi style de jeu bi. par exemple style de jeu bu FC Barcelone c'est pas c'est pas pareil avec avec celui du Real de Madrid. peut-être ñen ñi yenn observateurs yi ñu ngi doom gis ne Sadio il était plus compatible avec le Real parce que Real xaw na méngoo ak jeu Liverpool mais est-ce que Mingo na ak jeu Barça. Mhm. donc en fait allusion bi la quoi. Mhm, d'accord ñu jël euh, internet comme que nañ euh, débat bi relation bi euh, ñu jël avis allo. Ah, allo allo. oui. maa ngi maa Nous lay fay sëñ bi tur bi Touba. Moustapha depuis d'accord ci waaw man sama point de vue mooy Sadio Mané dëgg la élément bu baax la. te tamit comme fu mu mën fu mu dem mën nañu jouer parce que nag Eden Hazard moom dafa war a yore grand joueur yu bëri quoi. parce que Eden Hazard Chelsea dafa daan def naaj dem dañoo tuddu moonu daf ko daf daf daf def li mu man parce que Barça. jéggi nii bi ñuy joué ak Sadio Mané jéggi nii joué man dama gis ne dafa différent. Mm-hmm. parce que Sadio Mané moom bu yoree bal bi day dem day def contre attaque. Mm-hmm. te Barça moom bu yoree balam day taxaw paasante paasante ba kuréel muy gis lu mu xam dóor a dóor. pour man sa moom joueur bu ne réer la ci mais pour man grand joueur la ñoo war a xool comme comme le cas de Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. te ji bu doon doon tey du doon du doon ñu fii quoi. pour man mais Liverpool Liverpool quoi. Liverpool Liverpool merci. D'accord, merci beaucoup. Mhm. on peut enchaîner gel, gel, gel, gel ay réaction euh, je rappelle ni numéro ngeen woote 78 150 74 72 et que l'émission est accompagnée par euh, Canal Plus Sénégal qui est en promo jusqu'au 31 août euh, Dylan Fatel, décodeur de 1000 francs Donc, lañ koy jaay mën nañ salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi nuyu ñu ngi lay fay sëñ bi di la ziar delloo ziar bu baax tur bi naka la Amadou Sall Amadou fan nga ñuy woowee maa ngi lay woowee Gossas depuis Gossas Amadou yaa ngi en direct ci émission bi maa ngi di nuyu baax leen ziar di participer di bëgg a participer ci émission ci côté Sadio Mané laa bëgg a waxee d'accord yow la ñuy déglu euh, bon <clears throat> pour man Sadio dem FC Barcelone mm-hmm bon pour moom loolu loolu loolu loolu initiative bu bu bu ma rafetul la lu ma bëgg la tamit. waaw parce que comment yoroon na ko feneen nu mu tudd Samson Tana su ma jógul. waaw. waaw bon pour man ñaari nit ñu xas ba xamante. xam nga te dina dina dina dina apporter Sadio Mané lu lu bëree bëree bëri. te mhm. eh, pour man eh, pour FC Barcelone ñëwaat. Mhm. seen pour man Sadio Mané moo nekk joueur boo xamante nii. instant bi instant bi nii ci ci ci côté moo fa mën quoi parce que boo xoolee côté ailier ailier muy football mm-hmm. FC Barcelone moom moo fa nekk joueur boo xamante nii moo fa mën mm-hmm. waaw man bon vraiment bëgg naa mu dem FC Barcelone a pour man waaw bëgg naa ko bëgg naa ko trop di rafetlu seen émission bi vraiment maa ngi ko suivre chaque jour ci internet bi jaajëf merci beaucoup mm-hmm. jaajëf maa kontaan ci yéen ñu yokk leen jëm sa kanam rek d'accord jaajëf merci beaucoup Euh, Alamine pour nous commenter un peu peut-être ci ci style <laughs> jeu Sadio Mané bi ñu euh, du compatible avec FC Barcelone c'est vrai Barça peut ci kitaka bi lañ leen xamee mais peut-être tamit lolu lu fa coach bi bàyyi la ak lu fa joueur yi fa nekkoon baye mais tay voilà tay li nga xam moy reconstruction équipe bu amé euh, entraîneur bu bees am am recrutement bu bees peut-être aussi style de jeu de ne changer. je ne crois pas parce que la mhm. première déclaration de commande du FC Barcelone c'est ce qu'il maintient. Mhm. en fait il va il maintient l'âme mhm. du FC Barcelone parce que commande aussi. il dafa le Barça. a fait assistant. waaw dafa Oui, en tant que joueur. il a, donc tey Donc, euh, il connaît bien le FC Barcelone. c'est un entraîneur qui a fait. nii. équipe nationale. pour nous entraîner. FC Barcelone donc am voilà donc il na lu lu donc du coup euh, déclaration dafa wax que ne carrément il maintient le style de jeu du Barça maintenant ak yan joueur la koy mm-hmm. defee loolu mooy wax ji nag mm-hmm. foofu le problème bi nekk ak yan joueur lay lay def ak le Barça a daan def mm-hmm. parce que Barça soxlaatul ñu koy indil ñu koy jàng ñu leen di jàngal ban genre style lañuy ñuy jouer yooyu mais yane joueur ñoo compatible ak style bi parce que xam na né mom il a très tôt compris que né

xam nga man dama jàpp ma retour bi moo ñu moom ngay coupé comme ça nga déglu sa téléphone directement. oui maa ngi ko rek ñu déggante bu baax allo. allo oui. ñu ngi lay déglu bu baax. man gars yi lanam xamul. Hmm. est-ce que comment euh, nouvel entraîneur bi nii. nouveau entraîneur bi nii. waaw. est-ce que même style lay lay maintenir comme Barça wala. waaw euh, comme ñuy a dem Barça ndax bokkuñu style de jeu. Mm-hmm. est euh, bi même même style de jeu lay mel ki nga war day changé na El Amine Diop précisé na ko léegi nee na ci déclaration am euh, commande mi wax ni moom amu club bi moom lay garder c'est-à-dire que tey li tax ñëpp xam FC Barcelone loolu bëggul mu jóge fa. a à tout moment. Mhm. jàpp naa Sadio équipe bu ñu ko mën a yow instant bi war na fa mën a jouer. waaw loolu tamit mën naa ne. Mhm. parce que du comme dama dégg dem ñu ni Messi dafay dafay xam dafa kii pour quitter Barça quoi. waaw Messi de ci tànk yooyu la nekk. si Messi a quitté le Barça joueur bi mën a jël poste Messi instant bi c'est Sadio Mané. Mhm. en ce moment. waaw. Sadio moom eh, Bertrand moom war mën a jouer mën na mën na jouer Real feneen mën na fa fu nekk mën na fa jouer club bu nekk mm-hmm. mais peut-être comment mën na mën mën ko intéressé mu mu fexe ba mu ñëw foofu mm-hmm. oui merci beaucoup d'accord merci ñu ngi siyaare bu baax ñu ngi delloo ziar tur bi naka la ak fooy wootee. Babacar Catalan yëmbal. yëmbal d'accord. <laughs> yaa ngi ci Baba yaa ngi ci biir. maa ngi siyaare bu baax seen émission am na solo maa ngi rafetlu baax. merci beaucoup. Ah, concernant Sadio Mané à Barcelone donc man. Mhm. en tant que Catalan man dama koy rafetlu quoi parce que. Mhm. pour moi idée bu baax la parce que comme ni ko benn internet souligné léegi ci ci émission bi mhm. ah yaakaar naa Sadio Mané amatul lu ñuy privé Liverpool mhm. parce que ñaari titre majeur yi nga xam ne Liverpool soxla woon na ko année yi yëpp jëloon nañ leen donc pour man mu ñëw Barcelone xam nga amaat beneen ni challenge comme ni nga ko waxee mhm. c'est bien pour lui parce que boo xoolee man c'est euh, championnat Angleterre sax ren avec la signature de Lionel Messi concurrence ah, bi dafay gën a tar foofu quoi. Mm-hmm. gis ko moom soxla na ballon d'or wala ballon africain mu si signé foofu après concurrence bi de gën a métti ko moom donc. Mm-hmm. il fallait que mu changé club quoi mu ñëw Barça. te yaa xam naa Barça bi ñu si ñëwee dina fekk yenn star comme moom parce que su mu si demee yaa xam naa Barça dina am benn somme boo xam ne dina ko mën a jënd star comme moom. Mm-hmm. ñu koy jàppale ci comme ni ko kii waxee ak commande moom lii basaale jarbe comme ni ko sawaaji waxee waajoo toog mm-hmm. mais yaakaar naa Sadio Mané dina dina mën football mm-hmm. parce que boo xoolee basaale yor na ay joué comme Sadio Mané parce que Ousmane Dembélé peut être jiwu Sadio Mané la mm-hmm. moom ay contre attaque la football ay accélération même te continue donc yaakaar naa su fa demee foofu dina mën a dina mën a prouver daal ak euh, concurrence yi def pour ay bon bonaccord wala mu trophée ni digal yooyu dina ko mën Espagne parce que yaakaar naa fofu lay fofu lay gën a ci mom quoi Real wala Barça d'accord d'accord maa ngi jaajëfal ba émission am nañu ko trop jaajëf merci beaucoup jaajëf bonne soirée ñuy rappeler yooyu que Canal mom moy accompagner émission bi mm-hmm. Canal Plus Sénégal bi nek euh, en promo euh décodeur bi c'est à 1000 francs promo bi mi ngi dem euh, bala 31 août dañu am keneen d'accord Allô Allô Oui. Allô Allô Salam alaikum. Maaleykum salam. Nous sommes Ñu ngi jam. ñu ci jàmm. Kooku tur bi naka la? naka? Balde. Hassan Balde. Fan nga ñuy woowee Assane? Maa ngi ci Italie. D'accord Hassan, yow la ñuy déglu. Waaw man kay maa wax si tuuti ci mbir Sadio. man ne samay gis-gis saa yooyu mënul jouer Barcelone. mënu fa jouer waaw. mënu fa jouer dafa gaaw. dafa gaaw torop ci Barcelone. dafa gaaw ci Barcelone Barcelone jouer tic tac la jouer. mais mënul jouer foofu. parce que Sadio dafa gaaw amul amul ku la jox foofu bal. Uhum. tamit eh, Barcelone dafa daan instant yi dafa daan dëpp. waaw Barcelone dafa tas daal. moom soo demee foofu day daana tamit. ah bu demee du tabax. du dañ koy tabax. mu tabax ah. day day daanaat. ah. moom amuñu ba amuñu yu bëri amuñu attaque amuñu défense amuñu milieu ñoom soo demee foofu day daan rek. ah. saa waay li nga wax. day du jox. Barça di du de. par kii euh, Sadio Mané. Mhm. balaa mu am lu muy am day resté euh, Liverpool ou bien Manchester City United. d'accord. jeex na. Mhm. si nga xam ñun suñu footballeur ñun suñu footballeur Sénégal ku war a joué Bar Barcelona. jiguñu ku war a joué Barcelona déedéet jiguñu. d'accord comprendre. <laughs> merci beaucoup merci. merci nee na nee na Barcelone euh, jiguñu euh, Alamine am na internet bu génnoon sànq mu waxoon euh, lu am solo. mu ngi que ni concurrence bi déwén dafa nar a metti Premier League parce que ki nga moo di Lionel Messi rumeur yaa ngi wax ni City lay jëm te kon City day gën a renforcer wu. régler problème mu défense mi taxaw itam problème mu attaque yi loolu dina indi problème lu bëri Liverpool. pas pour Liverpool mais dina am mhm. benn adversaire bu solide buy nekk ci kanamu Liverpool. Mhm. donc saison prochaine. Euh, que le City def ay recrues yu bees ou pas. Mhm. mais c'est sûr que Premier League bi. Mhm. Euh, Liverpool du yomb pour moom. Mhm, jafe-jafe itam lay doon ci euh, distinction personnelle yi Sadio Mané di xaar. ma bàyyi la nga jël ko ñu ñëwaat. allo waa yaa ngi dégg ah. bu doon bokk si émission bi. yaa ngi ci biir tur naka la ak fooy wootee. maa ngi tudd Alassane. yaa ngi ci biir. waaw waaw waaw dama dégg ngeen expliqué Sadio Mané Barça. waaw. waaw Sadio xanaa amul mbokk. Mhm. loolu yi déglu ndax a ne ci crise Sadio Mané di fa dem xanaa loolu dul xel mënu ko nangu. Mhm. Barça man boo doon Real sax mu ne d' accord ay ay City mu ne d' accord mais Sadio Mané dem fekk benn pression boo xamante ni kenn xamul toll mu bëgg koo yem. Mhm. non loolu moom xel xalaatu ko quoi loolu moom vraiment Sadio bu dee am nay conseil. ah bu doon maay moom moo ko dem. Mhm. waaw parce que Barça instant bii yow Barça bu ko wékki génnee Barça jeex na. Mhm. léegi ñu ne Sadio Mané kaay yow yëkkatiwaat Barça loolu sëñ bi loolu xel bu ñu ko nangu sëñ bi. d'accord vraiment loolu boobu vraiment man boobu d'accord ma ci tey d'accord ma ci suba d'accord ma ci ginnaaw suba. d'accord. waaw bu ñu leen dem a nag man d'accord naa mais day day dem Barça fekk fa problème bu toll nii maa ngi leen ah wax dëgg vraiment man moom. sëñ bi maa ngi. d'accord merci beaucoup. ok jërëjëf. on aime bien les commentaires xobee comme ça. Mhm. on aime bien. <laughs> ñu enchaîner ak keneen. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Moustapha moo ma dawaat. Moustapha waaw. waaw comme nee comme bu ñu xoolee ne comme Bata amat kër gu may la bàyyi ma rek euh, góor kon nee naa ñu gën a dem Bata ba fekk yem. ma ne kon dañuy xool africain à a fois bu ñu jëlee ci yenn produit ndaw yi dañuy sonn. waaw waaw. ñoom seen xalaat mais dafa moo gën a dooree ak ñun Sadio. ñu nga xamante ne bii Sadio Mané moo ko moom. Mhm. mais pour man Sadio Mané ñu ngi entre nous nekk na solo yeneen yu mais ay barkaay boo ko demee ñu ko xalaat seen seen seen day nëbb parce que ay seen mbokk la ñuy jël. Mhm. kon parce que bu ñu xamante jaar na italien moo rek bu ñu dëkkee parce que bu ñu jaraa waa waa Barga xam ne dinañ rey mais xam la nga nawet espagnol mais je pense que ni problème yooyu ni yëpp dina fa dina fa jeex instant bii nii. ak ak cycle bees bi ñuy entamé. xam nga sama dafa am benn ji mu ne. Mhm. tubaab bi dañuy dugal affaire affaire bi ñu indi man pour man changement comme ay gis nga changement bu fekkee ak ak bi passé. Mhm. presse bi mu def. grand jour la wala projet bi maanaam bu jël si ko war na mën a jël deux. Mm-hmm. mais Sadio Mané jël. Mm-hmm. parce que xam nga bu doon ay bu doon comme ay exemple français la situation bi nekk yéen a ngi ko ñoom ñoom ñoom ñoom comprendre xam ne nit ñi ñu la quoi. dama ma leen bëgg a jox ci tool. even though the things that I want to wear were because of eu I take my full guide, didn't do that. Mm-hmm. Yeah, you're good now in New York City. New York City. I guess. Yeah, I, yeah, I guess so. ay question pour gars yi gën a dugg quoi. waaw eu yi gën a dugg waaw pour émission bi gën a am doole. merci beaucoup amul benn problème. waaw merci waaw. merci beaucoup. waaw. mën enchaîner ak beneen internet bu fi rek aussi en tout cas c'est quelque chose ñu bëgg parce que bu li nga euh, distinction individuelle Liverpool Sadio il est fortement concurrencé là-bas da ngay gis ñaar ba ay ci ay moo distinction individuelle mm. donc aussi distinction euh, euh, collective yi rek la ci mën a mais Sadio dafa tollu ci carrière am distinction individuelle est-ce que vous continuez, Liverpool dina fa parce que l'équipe marche am mhm. ay concurrence équipe mhm. c'est parce que Liverpool qui marche actuellement mhm. mais pour moi am distinction individuelle ne xamné mom kessé mo koy am il va falloir bu dem ci équipe ne xamné mom kessé kese moy dox ça aussi il faut ñu battre xel c'est parce que Liverpool marche motax il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe Anderson quoi qu'on puisse dire il a fait une très belle saison bu ñu Arnold il a fait une très belle saison donc ça veut dire que ñooñu dañu dox motax mom mu bok ci joueurs parmi les cinq joueurs qui ont brillé briller ci saison mhm. comme le moo il tey bu amee distinction ñu mettre en concurrence ak ay propres coéquipiers mhm. mais euh, boo xoolee Liverpool année yi passé yëpp gis mi ngi mi jël ay coupe mhm. parce que ça a dit que 11 bi mi ngi dox. moom kay distinction collectivement Sadio Mané amatul euh, rien à prouver. pour nga xam Liverpool peut-être. Euh, côté personnel te loolu tamit joueur bi amna fumuy tollu ci carrière am da koy soxla. peut-être xëy na looloo tax ñu bari gis ni mais mais distinction individuelle yi nga xamanteni ni mom la faire face ci ëpp c'est subjectif quand même. Mhm. vote yi yeeg yooyu noonu yëpp. Mhm. y a y a pas que des choses yo xam c'est quand même objectif. lolo waji waa doon wax sank mu ni amul support. Oh, équipe bi xam nga équipe bi tamit bu amee ay joueurs yu bëri yu nekk en liste. mënul mhm. jël kenn rek di ko supporter. waaw mais est-ce que aussi joueurs yooyu noonu aussi ñoom tam dañu bëgg ay. distinction mérité nañ woon foofu sax nekk nekk est-ce que mérité nañ woon nekk ci liste ñoom tamit dañ ko dañ ko bëgg quoi. bëgg mhm. nañ ay distinction donc da ngay gis joueurs yoo xam ne ñoom tam dañuy def seen kéemtu lay kàttan pour yegg benn niveau bi. Mhm. parce que boo xoolee euh, Arnold il essaye aussi de gagner sa place en Angleterre donc si arrière droit bi donc tey jii nii moom aussi il a besoin de gagner des distinctions personnelles de faire de très belles saisons et que tu jii nii du pas meilleur joueur non non. Mm-hmm. mais nous, ñi les les fans. les mm-hmm. les journalistes etc. Mm-hmm. donc je crois que côté Bobo, euh, dara une belle saison après les commentaires les votes ak yooyu noonu mom da koy bàyyi ñi nga xam ñom ñoko ñoo ko mhm. mais fofu la bëggoon ñu waxtaanee fa. Mhm. émission bi tollu fofu foofu instant bii ni ni nii lan moo waroon nekk ay objectifu Sadio Mané allô allo. allo. salaamaaleykum. ma ngi leen di baax. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay fay. waaw yéen si jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax ñu bi naka la. Ah. sa Ousmane Diop Saint-Louis. Ousmane Diop depuis Saint-Louis ziar nañ la bu baax yaa ngi ci biir. waaw ñu ngi lay ziar bu baax waaw man yaakaar naa fàtte naa dem Barça di bonne solution de. Mm-hmm. waaw loolu ko mu dem bokk quoi ak joueur Barça bi mu mel nii quoi à chaque fois am nii nii quoi. waaw ren da ren da mu dem quoi ànd ak day sombre quoi. Mm-hmm. peut-être buy suuf day suuf rek. Mm-hmm. waaw fi mu toll nii Barça day suuf quoi bu fa demee moom lu mu mën ci ñoom Barça day suuf rek. Mm-hmm. kon dégg naa gars yi tam dañuy dem ay ñoom Zidane ak ñoom Mbaye Trichek ñoom Umtu ñëpp bu demee ànd ak Messi dem ànd ak Messi soirée bu ñu demee Barça dañu leen suux. da nga ne su fa demee ak tax mu jëriñ dara quoi boobu mu daal di dox quoi comme mu nekk woon ak euh, commande. Mm-hmm. soo ci sawantoon ko mel noonu. parce que tamit benn vrai commande travaille ak moom pendant trois ans en frais mu nekk woon mais góomu góomu demee Barça espéré amaat niveau moo commande quoi nekk si problème yi ñu gàntal bu demee am est pour mu nekkaat Barça ba mu nekkoon avant. waaw man daal suñu sañ quoi suñu sañ quoi mu nekk équipe top yi quoi instant bii pour mu gën taxaw Barça bëlistiment. waaw bëlistiment léegi mu gën taxaw Barça. donc mu nekk mu nekk lu rëppoo doxal dafa am saayram bu baax nekk gars yi jox ko position bu baax nekk ko partant box box box les plus grands joueurs actuellement ci équipe réew bi donc mu jógee fa dem Barça nga xam Barça équipe bi nga xamante ne problème donc mën ngaa gën lu quoi loolu loolu vraiment. fonction bi quoi dañ koy ko engrais ban dem Barça quoi vraiment. d'accord jaajëf. waaw. Mhm, merci beaucoup. mën nañu enchaîner Diop. Mhm. dugg si allo. salaamaaleykum. ça va. alhamdulilah tur bi naka la ak fooy wootee. mala lagi Amadou Balde depuis lagi Amadou Balde lagi ngi ci lagi émission bi lagi ngi ci lagi lagi yi sant bu baax alhamdulillah lagi lagi ngi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi en fait lagi euh, bi pour affaire Sadio Mané lagi lagi lagi lagi Barcelone mhm. Mhm. sama xalaat bu gàtt Sadio Mané football am yorul profil bu Barcelone mhm. xam nga fii moom fii footballeur boobu gis dafa am point fort dafa am profil boo xamante ne da koo yor boo xamante ne bu ci mu xool club yi muy joué mhm. Sadio Mané man je pense que ne profil am du profil Barça parce que pour mu dem Real sax ga mun a moo gën mu dem Barça parce que bu demee Barça pour mu adapté wu day jël temps trop mhm. parce que doon na footballeur boo xamante ni bon mënul joué ci ay euh, comme profil Barça boo xamante ne xam nga passe yu tuuti la ñuy joué Sadio Mané yorul profil boobu. Mm-hmm. nit koo xamante ni moom mun na tee bal mun na duut mun na def lu nekk mais man je pense que ni bon je le vois pas au Barcelone quand même. Mm-hmm. waaw tey jii nii mu dugg ah mu mu mu bu naree Liverpool pour mu dem Real moo mu Real parce que quand même aussi boo gisee muy def noonu. xam naa ne gars yi ñoo koy xabar rek mais Messi du question waaw dafa bëgg a dem bëggul dem day wax rek. d'accord. Messi day sobre. waaw en tout cas man loolu mooy sa man man man loolu mooy sama gis-gis quoi parce que souvent da koy def xam nga les grands footballeurs la loolu la ñuy def su bëggee loolu la fi seen comité noonu la ñuy def. léegi état ne day yëngal gars yi pour gars yi mun a tey kii yeggee cachet am bi na bëggul mu wàcc. Mm-hmm. fii tamit encore ku ko mën a jënd ku nekk moom il faut nga yëgal cachet bi. Mhm. loolu yëpp da ciy joué quoi mais pour Sadio Mané moom Sadio Mané moom bon pour mu dem Barça moom man ça ne me convient pas que mu jógee Liverpool nar a dem Barça mun na jógee Liverpool dem Real de Madrid mais mënul jógee Liverpool dem Barça. d'accord merci ñu ñu waa Kamel. merci. kii foofu la dëkk merci beaucoup waaw merci beaucoup jaajëf. ñu ñu waa Kamel kii foofu la dëkk.

ñu ngi fi ñu ngi si jàmm baax a baax. ah noo noo noo noo gisee lii mais Habib yow avant tout ça Messi dégg naa ñu ngi koy annoncé si ci. oui Habib yéen leen nar ci Premier League bii di ñëw. ah bon xam naa ne objectif bi ñu bëgg rek comme gagner la Ligue des champions. ah yóbbaale Premier League bi ndax fu ngeen de. waaye <laughs> te aussi xam naa ne Messi aussi tamit am na benn joueur pour gagner waat Ballon d'Or yi aussi. Hmm. te yaakaar naa amul meilleure destination actuellement bu dul bu bu City quoi. d'accord destination Sadio Mané Barcelone nag loo ci xalaat. bon pour man idée bu baax la ah. mm-hmm. parce que tey Sadio dafa soxla tey ci imposé wu koo xam ne moom mooy nekk porte drapeau bi. Mm-hmm. te parce que tey jii Barça vitrine la boo xam ne pour Sadio Mané Ballon d'Or yu mu bëgg distinction personnelle bi mu mm-hmm. avec Barcelone mën na ko am. parce que boo nee tey jii Barça ñu ngi naan Messi jugee mais n'empêche que Barça am na équipe bu amee Dembélé am Griezmann am Enzo mm-hmm. boo amee Sadio Mané c'est plus tey jii équipe bu bon quoi aussi. Mm-hmm. te Trincao aussi mu ngi noonu mu ngi ci fond de l'attaque te Barça dinañu renforcer en plus seen mm-hmm. pour man de su ma conseil boobu. opportunité bu taxawee da koy saisir. c'est moment tey jii nga nga jigéen ñi jëlee devant parce que Liverpool malgré que baax trop mais Sadio nekk fa leader mu ngi au troisième position koy xool. Mhm. voilà te tey jii ñun ñëpp suñu suwee mooy ko Sadio dem te soit nga football Real wala Barça loolu tamit c'est pas donné tout le sa carrière de football. Mhm. voilà ci joueur mag rek a fa jaar te Sa Sadio tey jii na pour jouer ci soit Real wala Barça. Mhm. te toll na foo xam ne aussi tamit. il a les épaules pour porter Barça wala Real Madrid. Mhm. d'accord. bon sincèrement loolu daal laa ci aussi pour contribuer si quoi. d'accord merci beaucoup. ok merci à vous. dinañ ko mhm. rappelé que Canal Plus Canal Plus Sénégal moom mooy accompagner. Euh, émission bi wax sa xalaat Canal Plus moom ñuy accompagner Canal Plus may pour ñi nga xamante jëndaguñu euh, seen décodeur bi décodeur bi c'est à 1000 francs fii ba le 31 août ngeen jënd abonné euh, mën a li nga xamante moo di match yi reprise du championnat yi. Mhm ngeen mën ko euh, seetaan seetaan itam compétition yi parce que bu len fàtte ni année bi euh, c'est passé euh, très vite parce que tok nañ ay mois juillet ñu li nga xam te moo Ligue des champions day ñëwaat mhm. très vite ngeen mën a kon seetaan match yoyu noonu ci qualité image bu len neex mais itam ngeen am commentaire yu yu am solo yi len bu weesoo plateau yu sport bi plateau canal mo dàq depuis waaw oh, mais oui Isfor mooy numéro un. Isfor mooy jiitu ba pare après après après canal doog a ñëw. 78 150 74 72 jël ko. allo na coupé retour. waaw ku baax retour bi ngay coupé rek. allo waaw retour bi retour bi rek ngay coupé. yaa ngi ci biir. waaw dañ na dañ na. mu ngoog yaa ngi ci biir tur bi yow tu es un technicien. non non dañ na dañ na c'est que dama doon xaar waa ji coupé quoi appel bi na ci ko. dëgg la dëgg la dëgg yaa ngi ci biir. ça va alhamdulilah ngi sant bu baax. ah jàmm bi am na solo de Sadio Mané Barcelone.

Coman dafa jot entraîner Sadio Mané dans sa mhm. carrière et que c'est tout à fait normal quand Coman rejoint un club comme le FC Barcelone mu bok ci club yu gëna mag ci aduna mhm. bi et que Sadio Mané Liverpool def ay jaloore bok ci joueurs à maintenir tous les grands clubs sont euh, sont en train de le suivre c'est tout à fait normal qu'on se pose la question d'autant plus que Coman est en train de construire une équipe une équipe voilà mhm. donc loolu Bougon ñu vas-y continue waaw ma man sama sama xalaat damay ñëw ci damay ñëw ci ñaari point benn point ça va être lu tax lan moo tax Sadio dem ak lan moo tax aussi war a mën a tëwul ba waaw pour bi nag pour mu dem Barça mooy lan mooy que ni Sadio Mané fii bu bu ba nit ñi xam ko ba Klopp ñëw dëgg dëgg ko jënd ko c'est parce que dafa dafa dafa def dafa def saison bu baax si sous commande Absolument. Sous commande. Angleterre Angleterre bu ñu Sadio Mané c'est c'est grâce à commande ñu ngi fàttaliku moo ko jëlee Salzbourg indi ko Angleterre moo fa le triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League sous commande donc je me dis que ni juste que grand club sous commande parce que Barcelone ñu ngi dégg temps yi Messi il est partout. Mhm. boo xoolee Barcelone joueur fa ñëw jëm at yu passé yëpp am problème que ça soit muy muy ay Griezmann problème bi am mooy problème ban mooy il n'arrive pas à jouer avec Léo Messi. Mhm. Mhm. te Sadio Mané bu ñëwoon yow mënoo xam ndax il va il va il va s'adapter avec leadership bi Messi ou pas maintenant bu fekkee Messi libéré espace bi. Sadio bu ñëwee day nekk en tant que leader. Mhm. donc ci point boobu je peux dire ni mën na rejoindre Barcelone ca Barcelone tamit quoi qu'on puisse dire jël na huit deux contre Bayern mais c'est un grand club. Mhm. Mhm. léegi le contre moom mooy mooy mooy est-ce que jar na muy jël risque di jógee équipe boo xamante ni. de un Liverpool c'est une équipe compétitive. certes Atlético Madrid éliminé na ko mais avant Atlético di ko éliminer c'était la meilleure équipe d'Europe mhm. championnat bi ils remporté à huit journées de la fin donc Liverpool fi mu toll nii boo xoolee bu ñuy xool football équipe mondiale Liverpool da koy lim trois meilleures équipes au mhm. Mhm. loolu c'est en grande partie grâce à Sadio loolu est-ce que Sadio war na muy jël risque di di bàyyi liggéey boobu mu def Liverpool yëpp bu jëm ci beneen club pour recommencer un nouveau cycle parce que Barça bu fa demee. c'est pour recommencer un nouveau cycle. Mhm. Exactement. Mmh. te Fouta boobu on sait pas si ça va aboutir à quelque de bien ou pas parce que boo xoolee gars yi atant club bi attente bi ils sont pas mooy loolu ils sont ils sont pressés. Mhm. Liverpool comme c'est un acquis c'est déjà acquis pourquoi pas bu jéem a consolider place am Liverpool pour comme li waa ji wax léegi rek dañu Liverpool boo ko ci croix trois meilleurs joueurs Sadio Mané bu bu ba nit ñi jàpp ni beaucoup de trois meilleurs joueurs Liverpool c'est parce que moom moo jéemut a endossé rôle boobu mais Sadio Mané bu taxawoon jéem a endossé rôle leader Liverpool bi da koy am parce que boo xoolee c'est le plus performant parmi les trois. absolument. Mm-hmm. donc man man sama sama xalaat loolu la quoi yaa ngi pour yaa ngi contre maintenant dam moo gën a ëpp doole je pense que.

wax ça ce serait un transfert risqué. Mhm. bu dee dafa dem instant bi ni bu demoon nak am fa ay résultats euh, challenge le défi la bo xamanté mhm. daf ko daf ko relever en tout cas instant bi Liverpool ci zone de confort am la nek mom Sadio Mané. Mhm. Euh, parce que mi ngi fa di fa def ay résultats. et que progressivement nous muy continuer dina continuer di gëna def ay résultats ci classement des buteurs africains yi nga xam te ñi ngi évoluer foofu mhm. ñi ngi doon évoluer foofu Premier League ak ñi fay évoluer ba tey mhm. dina mën a gën a xuus ci classement boobu noonu di battre ay records di dem mhm. mais tey itam bu demoon chercher ci beneen club te euh, li li li ñu war a jàpp ci mbir mi mooy tey Sadio Mané bu doon génn Liverpool du mën a dem ci yeneen club yu mag pour gagner fa ay titres individuels comme ni ñu ko waxee ludul club yi gëna mag ci Liga wala club yi gëna mag ci Serie A mhm. wala club yi gëna mag peut-être tay ci Bundesliga mhm. yenn club yooyu noonu gisuñu ko fudul ci Real Madrid Barcelone Bayern wala wala wala wala peut-être Juventus tay mhm. club yooyu rek la Sadio Mané mën a quitter tay Liverpool tay tay tay dem dem dem ci club yooyu or instant bi nii je pense que ni FC Barcelone moom moo disponible parce que Real yag na pisse Sadio Mané mais xuusul tamit torop ci ci dossier bobu non mhm. Real yag na ko depuis 2018. Euh, mhm. gis nañu ne Zidane mom Sadio lay wone waaw mhm. gis nañu que avant que ñu recruter euh, Eden Hazard donc def nañu lu ñu mën pour recruter ki nga xamanteni ni euh, mom moy Sadio ça n'a pas abouti Et aussi Sadio aussi n'a pas ne s'est pas encore exprimé par rapport à avenir de ban club la wara dem wala fan la warul dem donc je crois que jusqu'à présent Sadio Mane ne s'est pas exprimé pour dire si s'il doit rejoindre le Real Madrid. ou mhm. s'il doit rejoindre un autre club. chaque fois ce qu'il dit qu'il est à l'aise à Liverpool. lui qui mhm. joue à Liverpool et tout faut la mhm. donc voilà je crois qu'il il est très prudent par rapport à il est très prudent par rapport déclaration yi concernant son avenir sur le euh, club le rejoindre. et il a raison sur le coup. Miguel allo allo. allo oui. Mhm. allo oui. asalaamaaleykum bu ngeen a participer bi. yaa ngi ci biir sëñ bi tur bi naka la. tur bi Mouhamed la. Mouhamed naka. Mouhamed Sy. Mouhamed Sy d'accord yow la ñuy déglu Mouhamed. alors maa euh, vous déglu gars une di indi contribution si pour Sadio Mané ndax war na ou d'autres clubs. Mhm. à mon avis Sadio Mané imposé n'importe quel club dans le monde parce que il a le niveau. Mhm. Et fu Sadio Mané est actuellement dans le monde entier. Mhm. raison pour laquelle euh, les saisons qui a passé les trois années passées il a fait. Allô Allô Les excellentes saisons. Mm. Saison rek. Mhm. C'est c'est un problème euh, de de connexion. Euh, malheureusement mon moo euh, suñu dernier dernier internaute mhm. euh, ci ci ci émission bi mu nekkoon euh, suñu dernier intervenant mhm. Mohamed Lamine Diop ma résumé waaw boo bu ñuy résumé tey. Euh, mën nañ d' accord mën nañ jël le dernier. allo. Mhm. allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Sakho. waaw ala. naka mu ñu ne ñu ngi dem coupé sax. waaye man de dama dama dama gis. dëgg la dëgg la waaye déggante bi neexul de alo ah xaaral xaaral xaaral ma dindi léegi. Mhm. léegi c'est bon. waaw c'est bon ci yoon laa nekkoon moo tax xam nga rek maa ngi doon jéem a seetaan affaire mais c'est un peu difficile quoi. dëgg la c'est vrai c'est vrai. mais yaakaar naa ci affaire Sadio Mané bi ngeen di wax. waaw ñu ngi ci euh, Sadio Mané est-ce qu'il commande euh, est-ce que daf ko war a récupérer ou pas. dem Barça quoi. waaw. ouais. waaw man gis naa ne Barça. Mhm. bu fekkee ne parce que man Messi laa xaw a ragal quoi Sadio Mané bu fekkente ne Messi foofu noonu day xaw a andi benn difficile maanaam dina xaw a ci moom. Mhm. parce que boo seetloo kii nu mu tudd joueur français bi waaye. Griezmann. Griezmann mhm. difficile euh, difficulté yi mu am foofu boo ko xoolee Messi la. donc euh, parce que Messi bëggul ponkal fekk xëy na man moom si boppam ba na a Mané on sait jamais mais bu fekkee Messi dafay jógee moom moom bu fa demee dina am dina fa am place. Mm-hmm. parce que aussi euh, dañuy xam ne que ni équipe bi day commencé à à zéro te entraîneur bi xam na ko bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. di ñaan yàlla rek bu fekkee loolu mi ngi waaj mi ngi war a am yàlla am gaaw. ndaxte Sadio man li sama li ma a daal mu jugee mu jugee fële quoi nu mu tudd. Liverpool. mu jóge Liverpool voilà parce que li mu fa war a am yëpp na ko kon ça veut dire que war na mën a defaat beneen beneen euh, mun war na jëlaat beneen championnat beneen air quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord. maa ngi jégalu nag ci ci ci les kii bi parce que ci yoon laa nekk ci oto laay dawal moo tax affaire xam naa leerul baax. dëgg la amul problème. mais mais vendredi xam naa dinañ ci gën a sori quoi fekkee voilà li ma li ma li ma li ma li ma li ma ci wax mooy. Mm-hmm. Messi. bii paa moom xaw na sérieux quoi sérieux na koy day day day day day jugee day jugee kii nu ma Barça. day jugee Barça waaw man ni may déggee même information bi ñu ma jox sànq ni mhm. dégg naa ne c'est c'est sérieux quoi il va quitter Barça. Mhm. donc bu quitter Barça moom wax dëgg yàlla Sadio imagine toi Sadio Mané treize matchs. ça va y aller ah. mën nañu am dara te ginnaaw Coutinho Coutinho na ñëw mën na ñëw à tout moment parce que dañ ko abale woon. Mhm. waaw donc di ñaan yàlla rek fekkee lu war a am la yàlla na gaaw am bopp. amiin. vendredi incha allah dinaa dugg ñu gën a ñu gën a xoos xoos ci affaire bi. d'accord. Mhm. ok merci. merci beaucoup. je crois que voilà je crois que <laughs> moom moo nekkoon suñu dernier intervenant uh-huh. donc mën nañu résumer en quelque uh-huh. sorte de le thème parce que ça concerne li nga xamante ne nii moom mooy euh, euh, Sadio Mané est-ce que Coman doit le faire euh, doit aller le, le, récupérer pour, Indi mm -hmm. ko mhm. si si wetam parce que mhm. bu ñu fàtte ne commande mom mo yoroon Sadio Mané 2014 2015 2015 2016 yoroon ko foofu noonu ci Southampton moo indi moko dalal en tout cas Premier League mhm. donc gis nañu que euh, côté statistique on vous a montré euh, les performances de Sadio Mané avec Southampton sous l'ère commandes donc gis ngeen ko c'est 75 matchs joués c'est 25 buts marqués c'est 11 passes décisives pour mhm. deux saisons avec Keman. Donc aujourd'hui, Sadio Mané, euh, il fait partie des plus grands joueurs au monde. Taïdini, mhm. si on se pose la question à savoir s'il doit rejoindre Command ou pas, c'est parce que le FC Barcelone est un grand club. Mhm. À un moment donné, il était convoité par le Real Madrid et que nous actuellement connaît euh, Sadio il fait de bonnes choses avec Liverpool mais il est sur une très bonne lancée et que nous bari est-ce qu'il doit il doit quitter Liverpool parce que parce que parce mhm. que voilà par rapport à li nga mhm. xamante ne les récompenses individuelles et cetera mhm. maintenant li nga xamante ni nii moom mooy tam bi loolu moom moo ko sabab gis nañu intervention yu fi jot am yëpp par rapport ak internautes yi internautes yi ñi si ëpp d'accord uñu ko pour que Sadio Mane rejoindre fi nga xamante ni moom mooy FC Barcelone parce que ñoom li ñuy tiit moom mooy déjà le style de jeu et que Barça dafa nekk ci crise bu fa nekkee bu fa demee dafay su ànd ak ànd ak ñoom sombre et que on doit rappeler que ne, est en train de reconstruire l'équipe mhm. du FC Barcelone. Mhm. C'est un très grand club. Messi a annoncé son départ hier. Maintenant, euh, attendons de voir ce qui ce qui va se passer en tout cas, mm -hmm. avant la fin du mercato. Mhm les prochains jours seront décisifs euh, ci dossier bi kon du peut-être ñu ñëwaat en tout cas euh, euh, suba tamit dinañ ñëwaat à partir de 16h ci thème internautes yi xamna sax nañ ci ci ci thème à partir de 16h mi wax ni vendredi lay ñëwaat à partir de 16h suba ci suba le jour de Dijon. Mhm. qui a qui a euh, Celta Vigo, qui a fait l'Olympique lyonnais, qui mhm. avait fait une déclaration il y a mhm. deux ans. Mm Diop avait fait une déclaration il y a deux ans mhm. pour dire qu'il se sent plus espagnol. Que l'Espagne lui a tout donné. L'Espagne lui a tout donné. L'Espagne l'a donné à cette période pour jouer en l'équipe nationale Espagne. Si a gagné l'Inga Hamanteni, si U19, est champion d'Europe. Donc, Taïdini. Euh, Pape Cheikh Diop revient sur sa décision pour dire qu'il veut jouer pour le Sénégal maintenant si vous poser débat mhm. le cas Pape Cheikh Diop. Mhm. ñu mais il faut qu'on en profite en même temps aussi pour voir d'une manière globale mm -hmm. si les binationaux est-ce mm -hmm. que mm-hmm. décision unique ñuy jël mm-hmm. parfois c'est pas pour prématuré pour cette sélection nationale c'est pas mm-hmm. prématuré loolu yëpp dinañ ci ñëwaat incha donc di leen jox rendez-vous demain à 16h demain inshallah à partir de 16h ñu ñëw fii ci cas Pape Cheikh Diop nee ma canal bi canal momo accompagne accompagne euh, wiw sport euh, ci émission bi nga moi de voir wax sa xalaat di émission bi nga xam internet ngeen euh, canal plus nag dafa nekk instant bi ni en promo ak décodeur bi nga xamante c'est à 1000 francs fii ci Sénégal euh, ba le 31 euh, août incha euh, bu ko et ngeen daw de à partir de 1000 francs abonné wu mbokki ba suba émission bi à partir de 16h dinañ fi ñëwaat wax ci